ubbee course bi tay 5e journée fi ci hippodrome Ndiomb ko du job Thiès kaay tey nag toile fa kàlla macha allah tombeeg dimanche 17 janvier fi ci hippodrome ko du job Papa sal ñi nga am 3e journée tay toile fa kàlla macha allah waaye premier course bi nak mo nek noonu plus de 3 ans ñokoy daw moy moo am ñetti at ñoom ñi ngi wara daw ci distance su 1650 mètres numéro 1 nekk ki nga mooy Pathé Fary Diop ki ko moom mooy Bounama Diop numéro 2 nekk ki nga xamante ni mooy Maguette Diop Maguette Diop Masala Sele Maysa Sele Ndiaye ko moom Tarfa Kalla macha allah Maysa bu baax mi numéro 3 nekk ki nga xamante ni mooy docteur Dio docteur Diakharañ euh, ki nga xamante ni moo ko moom Tarfa Kalla macha allah mooy gas Xasaar. kala Massala moko mom numéro 4 nek ki xamanteni moy Mari Père Mari Père Abdou Khadir Mbay moko mom numéro 5 nek jeuk jeuk Cheikh Ahmed Tidiane djouk moko mom ndaysan mom lañ jaay Papicien numéro numéro 6 nek ki xamanteni moy Jamono Jamono Aliou djouk moko mom numéro 7 nek ki xamanteni moy Jobbe Jobbe nak Mamadou Diagne djob moko mom kala Massala numéro 8 nek ki nga xamanteni moy Karim Karim Omar bawo Junior moko mom bo Karim bu Mamadou diane Diop Karim Mamadou diane Diop moko mom numéro 8 numéro 9 nek ki nga xamanteni moy expert bo Omar bawo Junior numéro 10 nek ki nga xamanteni moy Lat Fatim buy bokkole bawo buy ba Tamsir bawo numéro 10 nek ki nga xamanteni ni numéro numéro 11 nek ki nga xamanteni moy mooy Taïf ak Bala Taïf ak Bayla ki nga xamante ni mooy daam baaw moo moom xam nga tayif ak bay laa nag dalay fàttali tayif toar fa kala macha allah ndeysaan mooy tayif ak bay laa numéro 12 nekk ki nga xamante ni mooy Alpha Ndiaye bu Pape Amadou Seck numéro 13 nekk ki nga xamante ni mooy Miss Yacine bu ki nga xamante ni mooy Mamadou Lamine Diop Lamine Diop mu baax mi nga xamante ni mooy doomu Thiès kaay Lamine Diop mu baax mi nga xamante ni mooy doomu Kaolack ndangaan Lamine Diop mi nga xamante ni toir fakala masalla ñëpp xam ko ci euh, Papa Sall lan ngay wax ci trois ans yi nga xamante ni ñu ngi rang mo Diop takk na trois ans yi comme ni nga ko limee noonu rek noonu la demee waaye mën naa ne ñaari fas rek moo tee départ bi daanu kañ ñu ñaan yàlla comme ñu ngi suñu cinquième journée yeneen journée yi fi ñu jaar yàlla na journée bi jaar mo Diop amin amin Papa Sall waaye Papa waaye ndax ñaan am na solo dorop ci jullit la

waaye di la nuyu di nuyu Baye Sall mbay Peex di nuyu àddina bi yëpp nag tubaarkàlla macha allah alaaji Matar maa ngi lay nuyu waaye maa ngi nuyu ki nga xam ne mooy alaaji Ndiaye di nuyu ki nga xam ne mooy Papito ñu gën koo xam ci Khalifa di wax ni maa ngi nuyu alaaji Omar Diawara treize partants yi nag tey sama xel daa dem ci diggante Bambi ak Tyson ak Bidiw tey treize partants yii tey sama xel dem na ci diggante Picc Seen ak Moussa Diop ak Basmala treize partants yii tey. sama xel dem na ci diggante Petit Bao ak Daaru Salaam trois trois treize partants yii tey di la wax ni la. mais mais maanaam waxal ci diggante ki nga xamante ne mooy dëkk ak expert. dëkk ak expert am nañ kan. tey am nañu kan. ndax Alpha Ndiaye ñëw na. Alpha Ndiaye ak Miss Yacine. bu Mamadou Lamine Diop. nee naa ko rawante la ñu wax. kenn mënu ko raw te daw ñu ba téye. dëgg la nga ni Alpha Ndiaye. maa doonu Tabara. nga ni Alpha Ndiaye maa doonu Mamboy. nga ni Alpha Ndiaye maa doonu Kasorun waaye nga nga xamni mo moo jóge bu mag ba écurie mag ba écurie mbott dal di dem écurie cuuj waye nga ni expert comptable mo jóge écurie Omar Bawo Senior anduko mhm. ak Lat Fatim mhm. dila wax ni nga ni Miss Yacine mhm. tubaarkàlla macha allah maa nekkoon écurie Kër Madaro maa dem ma ma maa rewini dila wax ma job tay ngay gis rawante bo xamanteni ku ci am 4e di nga dem ba ci fanfar bi ànd ak say bokk di fecc maa la ko wax. ndeysaan ku ci am 4e di nga dem ba ci fanfar bi ànd ak say mbokk di fecc lolou waxe Mara Mbaye la gaa yaa ngi rang treize partant lañ loolu mooy mooy yaayam ñetti at toar fa kàlla macha ñoo bokk deret ñoo bokki baay ñoo bokki yaay toar fa kàlla macha allah deret ji benn ay trois ay ay ñoo fi ne ay service yëpp ñoo fi ne quinze seizième trente trente deuxième ñoom ñëpp kenn ku ne toor fa kala macha allah sama bu baax moo jóg des na. Uh-huh. Marie Père moo jugee écurie Djily Mbaye. Marie Père. di fasu vitesse di fasu résistance. Mm. waaye nga ni Alpha Ndiaye maa jugee écurie Kër Madaro. maa ànd ak Sidi Ndaw ñëw. parti fa maa ànd ak Alaaj Njaay ñëw maa ànd ak Papito ñëw maa fa bàyyi jey naa ñëw doy si nee naa la tey. di nga parti ak parti Fary bu Bunaama Diop. gis ko am quatrième dem ba ci fanfar bi di fecc. parti Fary Diop bu Bunaama Diop Papa Sall. nga wax ci parti Fary Diop. Asan mhm. tey Alpha Ndiaye ki nga xam ne mooy Mambay moo ko indi ak Alaaj Njaay éleveur bu mag boobu boobule ak xalifa ñu gën koo xam ci Papito waaye maa ngi seen Goro Ndiaye mu dend ak ki nga xamante ni mooy Issa Gueye téyeur bu mag bi di la wax ma Diop. maanaam nuyu nañu leen ma Diop nee naa la tey. maanaam course benn bopp la ñun ñëpp nuyu nañu leen. nee naa la maa ngi gërëm Sidy Ndaw. ndeysaan ñaar fukki complète ak juróom la ñaw lu jox ma. ndeysaan waaye ma Diop maa ngi lay. seede yaa ko moom barki démb. maanaam yow lu la waay defal ci lu baax rek yaa ko moom. li nga def te ngay jooy. maanaam xaw ma woon ma Diop noon nga ma bëggee. maanaam lu waay def ci lu baax rek yaa ko moom. ku la gën fanaanul ci réew mi. yow da ngaa baax. sama maam nee mën da fay ku mënta leble war a mën a fay fay bor ndeysaan yow Mara keroog ku ñëw tëngee dalaa fay sa waaye dalaa fay sa bor kenn lebalu la bilaay kenn lebalu la yàlla na yàlla guddal sa fan Mara ma jóob peex Mara la dafa yaatal ku yokku yaa wàññi waane ma jóob na bi yor jënd jox na ko yaayam jox na ko sëram man ba ma seetaane vidéo ba damaa jooy loolu laa gis moo tax ma ko ko deful woon dama wax gaayaa ngi rang Mara dafa baax toar fakala maasàllaa sa doom ji yàlla nga dund bari ko muur muy sëy bintu rasulullah ndeysaan fatou mata bintu rasulullah ma jóob indil ma sama banque bi ma teral ko turandoo bi man dem dama ko damay teral ma ah waaye ma jóob ma na kursu am gan alaaj na kursu am gan waaye maa ngi nuyu Lamine di ñaanal di nuyu Adama Sall borom bayif waaye maa ngi nuyu ki ñu Lay Ndooy waaye maa ngi nuyu ki nga Omar Bawa Senior ma

fas yëpp a ñor man la fi ñu toll nii Alaaji Njaay boo ko dompetee du ko yëg fi ñu toll nii Mambay boo ko dompetee du ko yëg waaye fi ñu toll nii Issa Gueye boo ko dompetee du ko yëg fi ñu toll nii Adama Baaw boo ko dompetee du ko yëg fi ñu toll nii ki nga xamante ni te dëgg-dëgg mooy Papis Neng boo ko dompetee du ko yëg fi ñu toll nii ma joob góor a kan rek la ñuy xaar ay ma joob buñ ne la départ donné koo njëkk a focal ci photo finish bi boo moytuwul du bokk ci xaalis bi ndax day sens. gars yi rek léegi ñu jekk ñoo ñooy trois ans yi tëkkale bu méttee càmm ci diggante expert comptable ak ki nga xamante ni mooy jëkk ak Lat Fatim bari na bari na bari na bari na bari na tëkkale bi bari na tëkkale bi métti na. Alpha yi jekkee gars yëpp jàkkaarloo gos moo daw yaram. lii moo ne a raw sa morom mu jëm. ndeysaan ndeysaan kenn ku ne mën a raw moromam. kenn ku ne mën naa raw moromam Papa Sall fi mu toll nii koo ko yëg Papa Sall koo dompa du ko yëg de Papa Sall jekk nañu jekk nañu trois ans yi jug nañu trois ans yi jug nañu. trois ans yi jug moo génn. jëkk ñëw na Alpha Ndiaye ñëw na Miss Yacine ñëw na Faso di Marie Père ñëw na. waaye Alpha Ndiaye moo ko ñu teri. Alpha Ndiaye moo ci expert comptable moo génn. expert comptable. moo génn. expert comptable moo génn. nga Alpha Ndiaye ñëw na. Eh, Alpha ñëw na ci kawam Madiop. Modiop expert moo génn waaye mi ngi yokk distance bi Modiop. jëkk nekk deuxième position mooy ñi ñuy tëkkale nga xam ne mooy Alpha Ndiaye moo ñëw uuf leen ak dara yënguwul façon nga xamante ni mooy Marie Pierre moo ñëw toog cinquième position moom tamit waaye Modiop maa ngi lay seede barke Serigne Fallou Mbacke bii dina sens dina métti tey. bii rawante jëkk expert numéro 5 bi moo nekk deuxième position nekk ki nga xamante ni mooy jëkk ah toile fa kàlla nekk ki nga xam numéro 9 expert eh, comptable moo nekk si moo nekk si kanam moo nekk si kanam moo nekk numéro 9 fii moo génn daay def nañ benn tànk mooy Alpha Ndiaye préparé par Ousmane Ndak préparé par Mambay mm. préparé par Papito moom it moo ngi ñëw deuxième position ak dara yënguwul dëkk yëngu koy attaqué expert jëkk laaj eh, jëkk attaqué na gars yi gars yi yokk nañ distance bi ma jóg waa expert génn jëkk bañ na eh, SPR bañ na SPR bañ na mais SPR kenn moo dal ci kawam bi SPR am na ko dal ci kawam Lat Fatim moo nekk deuxième position SPR ak Lat Fatim SPR ak Lat Fatim la ñu ànd jugee Mbaawo ñu ànd jugee Mbaawo ñëw waaye dawal nañ jëkk dawal nañ Lat Fatim dawal nañ Alpha Ndiaye dawal nañ ki nga xamante ni ca dëgg-dëgg mooy Marie Père Alpha Ndiaye ñëw na Alpha Ndiaye ñëw na Alpha Ndiaye ñëw na laa ilaaha illallah expert yokk na distance bi expert ndeysaan yokk na distance bi

cinquième numéro 4 nekk nga xamante ni mooy euh, euh, Marie Père bu Djily Mbaye oh expert comptable raw na expert comptable raw na expert comptable raw comptable bu Adama Bawo raw na mara ñu dem Adama Bawo kay wàccal wàccal liggéey la mais tal tal tal gu bëri gi fas ñooy daw yàgg naa leen ko wax nee naa leen mbir mi liggéey la man dama xam sama produit yi ma yor. man du ma caaxaan. man nee naa leen xaw ma defet te li ci kanam raw li bët. nañ dem ba ci kanam. pourquoi deuxième troisième jégloo. jeex na tàkk li gisagu leen dara li ci kanam raw li bët. waaw di santaat yàlla di julli si rente sant sama ñaari waajur loolu dañ ko liggéey avant waaw te tëkkale bëri woon na lool wax ji bëri woon na lool waaye dañ na suñ ñëwee si ëpp daram ñoo ba ko defe naa ne leer na ba pare waaw di doole di sant yàlla rek ñu gis ni yeneen rawante mi ngi sa kanam parce que fas bi nga xamante ni mooy jof yoor yaa ko war a war euh, fas bi nga xamante ni mooy euh, euh, kii tamit du ma yéen ak mir wax mir wax yaa ko war a war tëkkale yooyu foofu tamit bari na foofu tamit loo ci wax foofu ah, di sant yàlla rek di ñaan yàlla mu may ma ndam dëkk lay bëri na loolu waaye ndam rek. ndam rek ñoo koy daw ñu ngi war a ngi nekk ñu ngi nekk sept partants war ci distance 1200 mètres numéro 1 nekk Baraka 3 Alioune Seck moo ko numéro 2 nekk Am Saxul Abdou Rahman Agne moo ko numéro 3 nekk ki nga xamante ne mooy Ndeye Fama Der Yabal Der moo ko numéro 4 nekk Assirou. Assirou Toile fa kala masala El Hadji Samba Diang moo ko moom numéro 5 nekk Yacine Sogui Yacine Sogui nag ki ko moom moo nekk ki nga xamante ni mooy Awa Diouf numéro 6 nekk ki nga xamante ni mooy Kirène suñu maay bokkale baaw maa moo ko moom numéro 7 waaw. Hmm. yàlla dogal li muy dogal ci moom fas yi daal di génn àddina. Oh, kon Kirène bokku ci ndeysaan Kirène ñëwul. ñëwul kon ngëlëmu loolu nga xamante ni dëgg la daane te mu jóob Omar bu ñàkkee rek ñu ñëpp a ñàkk ñëpp a ñàkk ndeysaan épique moo ñàkk kon Omar Bawo Junior ñoo ngi lay mastawu ci keneen moom keneen keneen ndeysaan numéro 7 nekk ki nga xamante ni mooy Diofior bu Omar Bawo Junior ndeysaan waaw ma jóob bu ngeen baal bu ngeen masawu Omar dama fekkee dama war a masawu Omar keneen ndeysaan keneen dem na waaye aw naqar soo ko bokkee ñëpp rek naqar wa da daal di oyof lan au lieu de sept partants mooy faso Omar Bao bi mu tuddee kireen bi nga xamante ni. dëgg la toile fa kàlla macha allah ñoom moomoo ñoo ko moom. Modiop Modiop li daw sama yaram. mooy kireen dafa engagé ba pare doog a doog a daanu Modiop looloo daw sama yaram Modiop. gars yi léegi loolu mooy àdduna. jaabal nañ ko alxames fas yu yàlla def mara mi sax moo ma ko tàggee ndax moo ko def ci groupe bi ma gis ko. man de pourtant maa ngi ko doog a yëg léegi nii. Modiop gis naa fas bi léegi rek mais xamoo ne kireen la ndax man Omar yàlla moo ma booleeg kàmb gi ma fekk may ma loxo ma génn kàmb gi yombul ndax kàmb gi ñu def laalo ci cat li boo tegee sa loxo doon yéeg sax da ngay barastiku xam nga ko nag waaye buñ la yooree gën koo gën koo xam rek buñ la yooree ab eseel ci biir kàmb gi mhm. da am foo taxaw génn kàmb gi mhm. di wax ni la mhm. kiren moom gën koo xam am na ñoo xam si dañuy profité waaye yow yaa xam sa bopp ma jóob cëru ñooy kenn du ko yoon meneen dëgg la ndeysaan mi ngi noonu maa kàmb gi mu la fekk génne la yow xam nga ko bu baax a baax doomu buur géwal nga waaye na nga fexe ba nang ko gën a xam amna na ñoo xam si toal toile focale dañuy profito te profito baaxul gaay yaangi rang gaay yaangi rang. mu ñëw gaay yaangi rang legi mu jeex set partant la woon waaye keneen mo daanu ñu nek 6 partant mu Diop ci bodorom El Hadj mu ma Codé borom gañay baye Alioune Diop sama waji ah baba sal eh lol ma la ko Alioune Diop nee ko doo fekkee ñaaw doo fekkee lu bon Alioune Diop ma Codé nee ko sa baye da la jur rek mag la waye geñu la te dem aramul ñaawul dem bayiko bon mo bon waye lu fi nga ko ay jek lañu kay jek nañu ñooñu deux cent jekk nañu gars jug nañu six partants lañu wara dew ci distance 1200 deux cent mètres euh, toifa kala masal kay jug lu lugaloo daa mel ni mo génn bu Omar Bawa señor waye ndey fama faama deer lu ko lo nek ci de joof yoor ñëw lo nek ci de ma jop kon jof yor lo numéro 3 bi mo génn nek ki nga xamante ndey fama der ndey fama der mo génn Ndeye Fama ma ko ma jóg. Ah, troisième position toile fa kala macha allah xàcc bi la. Modiop Ndeye Fama der moo génn waaye moo topp Modiop oh ko Modiop. Diofior ñëw na si kawam Diofior ñëw na si kawam Ndeye Fama der Diofior Ndeye Fama der Ndeye Fama der dem na Ndeye Fama der bañ na Ndeye Fama der Diofior Ndeye Fama der Diofior ak ki nga xamante ne mooy ah, Assirou. Yacine Sogui Yacine Sogui pour troisième position Yacine Sogui tool fa kàlla baraka 3 mi ci ginnaaw gaa yaa ngi daw xel yu métti gaa yaa ngi daw xel yu métti. ma jóg ma jóg gaa yaa ngi xëjoo peloton bi ma jóg. billaay wallaay ma jóg gaa yaa ngi xëjoo peloton bi. Ndeye Fama de mi ngi ci kanam Ndeye Fama de mi ngi ci kanam am na fas bu déclenché kookal la am na fas bu déclenché Mara Mbaye. ma jóg ki déclenché deuxième position. ki déclenché ma jóg mooy Diofior arrondissement. waaye ma job ki déclenché. Joso takar na Fama Deen Joso takar na déclenché mooy yaa Joso takar na di la wax daal tey jii rawante bi Fama Deer sans na Ndeye Fama Deer Fama Deer Ndeye Fama Deer Ndeye Fama Deer Ndeye Fama Deer Ndeye Fama Deer Ndeye Fama Deer attention attention première Ndeye Fama Deer deuxième Diofior troisième numéro 4 nekk ki nga xamante ni mooy Assirou cinquième numéro 5 nekk ki nga xamante ni tool fa kala macha allah mooy Yacine Sogui cinquième nekk numéro 1 nekk Baraka 3 La laay li laa course bi rëy na. course bi rëy Mara deux ans rëy xamal nag ma jóg. waaw ma wax la ko pour muy leer. waaw catégorie bu ne am élément. amna élément dëgg la. trois cent yi. Fama Der raw na. bu lugolo bu lugolo ndeysaan. deux cent yi. Ndeye Fama Der do mo Habibi. 5e journée bi li ma ciy wax euh, du bari waye xana di féliciter encore ak di remercier amateurs yi nga xam ñoo waron tok ci hippodrome bi te may ñu ñu dawal à huis clos comme conformément ak la volonté de l'état loolu nag nekk na loo xam ne lu am solo ñu ngi def lu ñu mën pour respecter les mesures barrières parce que mooy nekk à la fin de toute organisation actuellement ñu ànd ci ak gouvernement bi di leen jàppale te fi mu nekk nii d'ailleurs waa Covid 19 bi ñu ngi ci hippodrome bi ñu contrôler di xool jusqu'à présent reproché wu ñu dara lu moy du ñu encouragé ci action yi ñu mëne mais encore may invité nit ñi ne leen rek dinañ xam ne lii ñun duñu lu ñu gënal bu ñu amoon lu ñu gënal ubbi bunt yi ñëpp ñëw dugg. Il il y a def mi kaw gérer avec le gouvernement te ñoom li ñu conseillé des mesures barrières ak distanciation sociale bi ci que nous la en même temps nous ngi faire des courses pour les propriétaires et les entraîneurs les jockeys pour nous am parce que face à ce métier, nous nañ la ñuy daaj je profite de l'occasion pour remercier le directeur général de la LONASE euh, Lac Diop il nous a beaucoup accompagné Li yëpp buñ ko mune def ngir yalla ak LONASE la Waye si président de la République monsieur Matarba, M. Euh, monsieur Macky Sall mais Matarba aussi il n'est pas euh, passé à côté Mais nous accompagnons tamit lepp lu mu xam ci conseil mu ñu koy jox ñu koy def conformément au au comment dire au règlement des mesures barrières. ah groupe 3 groupe 3 bi ci diggante King Mambo maître Moussa Mbacké ci diggante Bax, propriétaire Omar Diawara. ci diggante ma sàcc wax la vie Ndiaye waaye ma Diop maa ngi xamal ni la di nga gis volti tey di nga gis rawante yoo xam ni rawante yu sens lay nekk ak rawante yu métti li El Hadj Ablaye Mbaye peex daa wax nag tey moom lay waxaat njeexaat foofu waree doom delloo fa sa loxo waaye ma maa ngi lay xamal leen de El Hadj Ablaye kenn moom. nee na président nag xaritam la. ndeysaan gaa yaa ngi rang. waaye ma Diop. borom Daara Jolof. waaw ma Diop. xam nga gaa yaa ngi rang. te war a dem ka nga waxe mag dem dancaali bàgg wax léegi njeex njeexaan ku forab dërëm delloo fa sab loxo waaye ma jóob du ma weesu du ñaanal Ndiaga Ndour ak Bouba te wax naa la ne la amuñu benn émission bu dul bi nga yor yow ndax ñun moom rek la ñu seetaan mardi bu ñu añee ba teg na ataay ma jóob peex rek lañ bëgg a jàkkaarloo yàlla na yàlla guddal soo fan ma jóob gaa yaa ngi rang ñi ngi dugg ci box bi. Ndeysaan wax nga dëgg gaa ngi rang. ñu ngi rang dix partants lañu. ma jóg dix ci teewaayu Gora Ndiaye mécanicien bu mag bi dix partants ci teewaayu Sid Ndaw transfert boobu dix partants ci teewaayu Pape Sow dix partants ci teewaayu Ablaye Ndoye dix partants ci teewaayu Aline Diouk ak Assane. gars yi jug nañu Mara groupe deux groupe trois jug nañu ñu ngi nekk dix partants nañu. Masacci wax la bu vieux wax la moom day génn moom loolu def Masacci wax la. day gars yi def nañu benn tànk def nañu benn tànk numéro 10 bi génn ma wax la ndigal ñëw ma sàcc wax la moo génn numéro 9 bi tamit ñëw ne ki nga xamante ne mooy baraka 2 tool fa kala ma sala doole ngi ci volti mu ngi ci ma mbokki mi ngi ci ndigal ngi ci baax mi ngi ci taqwa mi ngi ci bel bu jini mbay mi ngi ci baraka 2 mojob ma sàcc wax la moo ñëw waaye ndigal a ngi ci biir groupe bi mojob baax a ngi ci biir groupe bi mojob ma sàcc wax moo génn ba léegi mojob peex Massad wax la ba léegi moo génn Papa Sall. ndeysaan Massad wax la bi mu génnee. ndeysaan dañ koo limité. dëgg la waaye façon nga. xamante ni tee nañ ko tee nañ ko mu banku. mooy baax moom it ñëw na. waaye ma jóg façon. mala mala li fas yi def mooy njaamum golo. waaw ma jóg. mala ñi ngi njaam njaamum golo. ma jóg ci teewaayu Siit Ndaw taalibe sëñ Bamba mag bi. ndeysaan ndeysaan ma jóg ci teewaayu Pape Sow transfert boobule. ma jóg ci teewaayu Siit Ndaw borom écrit mag tumbu kër. mais mala mais mala. waaw guddi ñu toll ci mbay boo ko ma boo ko boo ko kaataatu ko yëg. dëgg la ndeysaan ndax bel oh bel fasu gañaa la ma joob xam nga bel ndeysaan moo nekk si groupe 3 bi yaay ji Serigne Moussa Mbacke Gaynde Fatma moo ko jëloon jox ko Jili Mbay boole ko teglu ko ba mu jàpp mu juglu ci bel moomu waaye ma joob alaaj Njaay moom ci course bi moom tamit waaye ma joob ne kaar moo ñëw kiri réuni bu professeur Sakhir Thiam fa la daa jógee fala Buraax daa jugee fala Daaru Salaam daa jugee fala ca kanam daa jugee fala peccul. ndeysaan ñu ngi ci 200 mètres bi bu ñu ñëwee dañuy dellu 2200 mètres la 2200 mètres la Papa Sall. ma jóg 2200 mètres la ma waaye gars yi ko def ñetti xaaj ba pare gars yi dawal ko ñu bel moo génn numéro 1 bel génn taxawaay ñëw na ma sax ci wax la ñëw na ma jóg gars a ngi ci groupe bi ma jóg pexe. a ngi ci biir groupe bi. bel génn bu Abdou Khadir Mbaye ma jox bel génn na taqwa ñëw na waaye bax na ànd ak King Mambo ba maître Moussa Mbacke Gaynde Fatma façon nga xamante ni mooy dolli moom tamit ñaw na waaye ma jox nee naa la bel moo génn joxe lu ma deux mètres cinquante daal di toog teg ay birdongam ndeysaan ji léegi yëngal tànk bi rek xoolal ji ba loolu mooy dama war raw. loolu mooy jaay jaay. ma job Mambo. King Mambo moo jaari laa ilaaha illallah Mambo. maître Moussa Mbacké King Mambo. Dariabo Mambo King Mambo. Jaxeer King Mambo. Fatma King Mambo. Nefertiti laa ilaaha illallah xooloo daru APS bi ma job. ne Mambo King bu maître Moussa Mbacké. mam bokking bu maître Moussa Mbacké ak ki nga xamante ne mooy bel nekk nañu benn fas maam bokking bu maître Moussa Mbacké bel bel na ma bel dem na kanam ma job bel bañ eh. bel mën a daw waay Lamine Diop bel Sidi bel Adama Sall bel yokku na bel bel bel na distance bel yokku na na bel xale bi na bel xale bi na première belle. première belle. deuxième numéro 5 bi ne Mambo King. troisième ne leen troisième nekk ki nga xamante troisième numéro 8 bi. troisième numéro 8 bi nekk ki nga xamante ne leen kaa quatrième taxawa. moo moo la man dëgg la Mara. ma Diop ne leen kaar ma Diop. xëy na dama ko yërëm. ndax jiili daa bëgg Lamine Diop. jiili daa bëgg Sidi Ndaw jiili daa bëgg Adama Sall jiili daa bëgg Omar Ba Senior nee naa ko jiili mbay nag fi ñu toll neexul ba neexul. jiri génn na kamb gi ci teewaayu Pape Sow transfert mag bi. jiri génn na kamb gi ndeysaan kamb gi génn na ba. gars yi may nañ ko loxo jug na. jiri may na am lu nekk. ndax. maanaam benn raw na raw bu rafet. ma jóob benn raw na. raw na raw bu rafet ndeysaan. moo ma jóob benn raw gi mu raw. mbokking. ndam li maa ngi ko jël di may siit ndaw transfert mag bi maa bu maître Moussa Mbacké ndeysaan. mu dul deuxième maa la maa ko may Adama Sall. maa ko may Alaaji Ndiaye. maa ko may Papito waaye maa ngi ko may tubaarkàlla macha allah Pape saw di la wax nag fas nga ñëw ñu raw la taxut nga yàqu. da ngay dem defaru juwaat boo ñëwee raw rawante la ñu wax. rawante mais ma jóob ñaari nit rek di raw neexut. ma jóob ndamu ndamu Jili Mbaye ndamu Omar Baawo la ndamu Jili Mbaye ndamu Mbaye Diène Mbaye la ndamu Jili Mbaye ndamu Adama Baawo la Jili Mbaye mën naa am lu ne ndax sama maam nee na boo bëggee am jàmm da nga nit ñi jàmm te foo ko fekk moo gaay jàmm rek ak dëgg lay wax ak ñoom jili may dara jomb ko yalla ko ko mbakol mbakol bi ndeysaan demal tam ko jik demal mbakol mbakol mbakol bi ndeysaan xana ñu dem nak ci ci 4e course ak 5e course Aïcha ki nga xamante moo duma yéen bu may bu baaw numéro 5 nek major bu Moustapha Silla numéro 6 nek Dardas bu Abdou Khadir Mbay numéro 7 nek nga xamanté ni moy Alfat bu Anta lolu mo nek sept partants yi nga xamante ni naaru góor yi la ñu ngi ko war a daw ci distance 2200 m nday daas ndaysaan dardaas bu Abdou Khadir Mbaye professeur Sakhi Thiam tey indi na ñaar jiire mbay indi benn Omar Ba indi benn waaye kër yi Adja Thiou Diop indi nañ trois fas Mara Mbaye dëgg la moo indi Mazor mu bokk ak Dalinkoor bokk ak ki nga xamante ni mooy mooy mooy waxati leen professeur Sakhi Thiam moo indi Alfaat mu jóge écurie bu mag boobu écurie Fatma maître Moussa Mbacké waaye ma Diop maa ngi lay ni kooku nga xamante ni ca dëgg-dëgg mooy Medina moom lañ dubbee Medina bu Ndakaaru moo moo nga jugee écurie Cuuc moom tamit waaye ma Diop maa ngi lay nuyu di la wax ni Auguste tey ak Medina ak Alfat ak façon nga xamante ni mooy juma yéen. gaa yi jëkk nañu Jamara Papa Sall gaa yi jëkk nañu. ma Diop gaa yi jëkk war a daw ci distance deux mille deux cent mètres. gaa yi jug nañu duma yéen ñëw duma yéen ñëw na duma yéen ñëw na duma yéen ñëw na duma yéen alfaat ñëw na ci kanam moo nekk numéro numéro 4 bi moo génn duma yéen duma yéen ñëw alfaat moo nekk alfaat moo duma yéen ak ki nga xamante ne toile fa kàlla macha allah mooy Auguste. duma yéen Auguste duma yéen moo ne kanam. Auguste moo ci topp ma jóob alfaat a ci biir ma jóob Dardas a ci biir ma jóob tey lii daal laa ilaaha illallaah duma yéen a ngi yokk di sànni waaye fal na ko dafa toog ay biir noom ma du ma yéen ak ki nga xamante ni mooy Auguste du ma yéen bébé cuuc mooy yaayam Alaaji Njaay moo ko juddulu ci écurie Maktoum bu Kër Madaaro écurie Maktoum Lamine Diop écurie Maktoum Adama Sall écurie Maktoum Sidi Ndaw jël ko jox ko Iba Kole Bao muy magu Aminta Marie waaye deuxième position ba moo nekk Auguste Ndeye Fatma Diop soleil de minuit mooy maamam teg topp mooy Fary Al Diop mooy Gardas Fary Al Diop mooy yaayam façon nga xamante ni ca dëgg-dëgg mooy Medina moom it boogoo nga xamante ni ma Diop mooy soleil de. ndeysaan maa maa laa gars yi ñëw seen kaw ki nga xamante ni mooy Medina ñëw na Masor ñëw na Gardas ñëw na Alfar ñëw na gars yëpp dal nañu seen kaw waaye du ma yéen a ci kanam ba léegi du ma yéen a gis. du ma yéen a gis. ma Diop Gardas gaz wàll. Uh-huh. bu tàngee lay daw. Uh-huh. waaye façon di Masor moom it ñëw na waaye ma Diop façon di Alfar ñëw na. ci teewaayu Papito ak Sidi ak Alaaj Njaay Madiop mi ngi noonu Madiop du ba léegi moo nekk ci peloton bi Madiop Dardas ñëw na kanam Auguste ñëw na Madiop Daaru Sam ñëw na Madiop tey ji daa rawante bu neex lay doon Madiop laa ilaaha illallaah rawante bu neex lay doon du ma yéen ak Auguste du ma yéen Auguste du ma yéen Auguste du ma yéen Auguste laa ilaaha illallaah du ma yéen Auguste kanam du ma yéen Auguste duma yéen Auguste duma yéen génn Auguste moo nekk deuxième position Datas moo nekk troisième position ma jëb dawal nañu Alphate ma jëb. ma jëb dawal nañ duma yéen dawal nañ duma yéen El Hadj Ndiaye Omar Bao Gardas ñëw na Medina ñëw na Alphate ñëw na la ilaha illallah Medina ñëw na Medina ñëw na. dawal nañu Medina. dawal nañu Medina. Medina. ma Médina Doumbé nekk nañu benn fas Médina Doumbé nekk nañu benn fas Médina Toumé ngeen fas Toumé yéen kenn noo Médina Toumé naka ñu may fas ay waay Toumé yéen nii ay waay Toumé yéen nii ay waay Toumé yéen nii ay waay Toumé yéen nii ay waay Toumé yéen nii ay waay Toumé yéen nii ay waay Toumé yéen nii ay waay Toumé yéen nii ay Toumé yéen nii ma job Toumé yéen ñëw na ma job Toumé yéen ñëw na attention des six attention des six Toumé yéen Toumé yéen Toumé yéen Toumé yéen Toumé yéen Toumé yéen Toumé yéen Toumé yéen la ilaha illallah Toumé yéen Touba Yène jëlal lee Touba Yène ay la ilaha illallah ay waay Touba Yène la ilaha illallah wow wow wow ay waay segi jaay na ay waay Touba Yène ndeysaan Fallou Fallou ak Gadiaga ndeysaan ndeysaan ñi ngi nekk 11 partants wala ci distance su 2200 mètres numéro 1 nek Rajab Rajab bu Toafakala Masalla bu babakar Sadiq Diagne moko mom numéro 2 nek ki xamanteni moy Salimar Salimar bu Abdou Khadir Mbay numéro 3 nek Taif, Taif bu Serigne Khadim mbake numéro 4 me ki xamanteni moy Talisman Talisman bu Serigne Khadim mbake numéro 5 nek ki xamanteni moy Nasrullah Nasrullah bu Idrissa nya numéro 6 gars yi jug nañu gars yi jug nañu ak tere very good mir wax euh, ngërëm ak buraax ñoo ñoo war a daw noonu ndeysaan moo génn tayif a génn tayif bu sëñ Xaadim Mbàkke moo génn tayif bu sëñ Xaadim Mbàkke ak nindi tayif moo génn mhm. very good doomi tooye moo very good mi ngi position dëgg la de minuit xadi salam fall mhm. moo nekk troisième position quatrième position mo job talisman cinquième position ma joob tey sama yaram daw na tereef waaye ma joob nee naa la lii ku ko raw chloroquine max gel distance lépp xaj ma joob tayif moo génn ba léegi waaye ndi nañ ko sëkkatal gaa bari ñu ko sëkkatal ma joob. mil na ci kaw tayif. mil wax dal na ci kaw mil wax dal na ci kaw tayif du mil wax. du mil wax kan la very good la very good la. dañoo niroo ka dañoo mooy wane lamba faar mooy wane lamba faar Mbaawo mooy zone bulo mooy zone bulo. mu jóg wéri gud mi ngi yokk distance bi mu jóg. wéri gud mi ngi yokk distance hmm. Bambi Tyson. Pendeer yi neex Ndindi takk na de. Ndindi ñëw na deuxième position. Ndindi takk na mir wax mir wax ñëw na. quatrième position. mir wax ñëw na quatrième position. laa ilaaha illallaah ku subile na Mara Mbaye. ma jóg maa ngi seen talisman maa ngi seen Ndindi maa ngi seen min wax ma jóg. laa ilaaha illallaah ma jóg lii yaram sama yaram daw na. wéri gud moo nekk ci kanam. very good Taïf bu sëñ Mbàkke soxna loo numéro burax ñëw na numéro 8 bi la nekk nga ni mooy very good burax ñëw na dëgg la mhm. mooy miir wax mhm. burax professeur Taxir Caam mhm. façon nga xamante ni mooy Taïf sëñ Xaadim Mbàkke Tereb Omar Bawo Senior. Ndindi Omar Bawo Senior. very good Omar Bawo Senior. waaye ma jóg maa ngi lay xamal mel ni mbir tey bu ñu dogee jigéen tàllal mi. mir wax mir wax ngi ci alas bi. mir wax ngi ci alas bi. mir wax mir wax ngi ci alas bi mi ngi daw mi ngi ñëw. Eh, gaa yi yokku nañu xel yi ma jóg. gaa yi yokku nañu ko. Mhm. gaa yi yokku nañu xel yi. mir wax mir wax gën na ma jóg. mil wax gën na ma jóg Mara mil wax ñoom na. mil wax gën na. ànd ak kan moog buraax moog buraax la. écrit ni waaye ma job xoolal tereef moo nga ñu jële jël ñële ca autoroute à péage bala jaar moom tereef la ilaha illallah mir wax buraax buraax mir wax génn na wax génn na ay waay mir wax génn na buraax fam jaar ci aras ba tereef tereef moo jaar ci aras ba mir wax xacc baa ngi ñëw de dëgg la xacc baa ngi ñëw de. tereef la tereef boo man tereef boo man baa ngi si ñëw la tereef boo man saa si ñëw tereef mi wax tereef mi wax.

Yeah.